Euh, abu Thialamène. Hmm. Euh, nee nga saison bi da nga fas yéene def feuille flamme nest yaa ngi incha allah un ñëw daal ci kaw gars yi. bu baax a baax. waaw Raka Dieye kan moo taxaw sa kanam instant kan moo war a mën a ñëw jël avance bi jàkkaarloo yow. man li tax sa kanam bëri nañ torop. ah bëri nañ. torop ok kon du benn mbër. du ñaari mbër du ñaari ñetti mbër. Ah. tuddal ma ci tuddal ma ci. kan moom si jaaxal rek. Hmm. ñooñu ñooñu boo leen tuddee dañuy fone nga leen pare wala dara pare woo kenn ba pare yow mënoo pare kenn. waaw ah, mënoo bu ndaw pare kenn. mënul pare kenn. pare man sama combat yi bëri dafay yàqu rek. waaw promoteur rek lay démarche. day dem am na xam ne yeneen ba ci taxaw. dem ba si yàgg gars yi génn si comme daaw amoon naa benn combat spécial bi hmm. kan moo a jël avance bi. ren bi a jël comme kan. Euh, dana jël astafurlah xam nga sax kii Manick. Manick Manick Diouf Kayre. Manick Diouf Kayre ma ay combat yu yomb nag. Manick Kayre doomu doomu kooku làmb la. combat la. neex. xam nga Manick. naa ko baax. léegi kon lu tax koy laaj. loolu ma koy laaj moo ko xam moo tax ma koy laaj. mën na bëri. mën na bëri am safara am safara. ñeme lu métti. waaw der la waaw. man loolu laa man ma bëgg bëri ay der bëgg ma bëri ay ñoo xam ne dañ naan abu ki bëgg jàppee dafay roy ok bëgg am combat ñu ne abu ki muy bëreel moo ko mën moo ko mën da bëgg jël combat ñu ne tey nga dee tey ma dee te man balaa combat balaa mën a dëgg dëgg dëgg sama bañu gis sama deret ñu tepp ma wala ñu gaañ ma fu mett nga xeex rayante dóorante rayante man dërmatu laa bëgg ma combat yu yomb d'accord d' ba ci daal instant bi Mbagnick Diouf Kaïré na jël avance bi. na jël avance bi. abu ñeme nga jël avance Mbagnick Kaïré. kii alxuraan ñeme naa yi yéen a ko a bëri. mais Jacob Balde dugal ci sa liste. waaw sama liste. ce qui Jacob Balde Mbagnick Kaïré ku daan ak ki daanu Abou Thialamère pare na. pare na Jacob Balde. waaw xam nga ñaata at ngi taxaw daanu ko. ñaata at ñeenti at. loolu méttiwul. fii ah, kay ñëppay daanu ah, kay métti na kay. <laughs> ñëppay taxaw benn at daanu war a eh, exploit bëri deux combats daanu war a exploit kii taxaw quatre ans daanu affilé ñaata victoire quatre xaw ma cinq victoire. loolu bi mu daanoo digganteem ak eh, Dame Souguer numéro deux ba léegi euh, mhm. daanu. làmb ji. ñëppay daanu. xanaa nga teel a bàyyi. d'accord mais tant que yaa ngi si làmb ji di bëri. force da ngay daal. mais yow yow mën nga daan euh, Jacob Baldé. waaw yow ku dul Jacob bu naa ko daal. damay laaj rek mën nga daan Jacob Baldé. parce que borom daal ku dul Jacob bu naa ko daal. Abou sa diggante yàlla ku la woon tey ne la avance Jacob Baldé mu ngi yéex a nga jël ko. wallaahi man du ma waxoon du ma wax di fenn. nga jël ko ku jël ko laa. kii Seydina Mouhamed ak loo mos aduna yàlla moo ko am ma jël ko du la la xanaa ah, du mbër mbër la nit mbër la nit la moo dafa mën a ëpp nit. non ëppul nit sax. mais dafa yéeme. dafa yéeme ci bëri. man loolu dafa yéeme ci xeex. loolu laa bëgg Jacob ngay dóor bët bët bët bët waaye mu naaj. nga jàpp ne combat bi jeex na mu bëree bëree bëree ba jàpp daan am na combat boo xam ne ko dominé ci xeex mais dafa bëri ba daan. man loolu laa bëgg nag. waaw koo xam ne dañ koy dóor ba mu bëgg a dee. jàppatam di a nga war a waaw mu war a amee dafa war a. dafa war a lew waaw warul yomb. <laughs> te bara muy lew nga am combat bu métti. bu métti man combat bu métti la bu mu mos a ay combat ah. euh, te muy zongale rek. muy zongale kan. te mu euh, te mu daawoon booy passé boobu rek. kan euh, nga dëgg gis a ragal. non ragal ne ma diw. te mu daanam jabaatu moom loolu rek. kan la ci daa frein ngay ah, wax frein mooy bawol bawol bi. bawol bawol boobu. Lacrose. Lacrose Ahmed Lacrose man laa mais loolu boo naa sama lim. <laughs> mu ngi ci liste bi mu ngi ci gis nga bi mu duggee passé li mu fi loolu dara loolu erreur la woon. espoir petit poussé passé bi gën a tuuti bi nekkoon du jóg. ñu ne dem na Ahmed da koo freiné eh, la rek. am ndam si. moom Ahmed Ahmed di frein Ahmed frein na fi booy bi gën a tëj ci booy yi. li si njaay wala phénomène de jàmm gën ba muy ba muy naaw Ahmed moo ko freiné mu wàcce. ah petit loo ba mu ne nii Ahmed moo ko freiné mu wàcce yow nga taxaw fi naa mën nañu ma jox Ahmed Lagos. lu tax du xam lu tax nga koy lekk. loo mën ci Ahmed Lagos. ñooñu lan nga mën ci Ahmed Lagos. man maa ngi laaj loo mën ci Ahmed Lagos. loo mën ci loolu génn seen diggante foofu loo loo fa loo fa mën looy <laughs> balaa ñoo jàppante dinañ ñam dina ñam ah, kon nu ka kàddu di waxee waaw ah, bala ngeen ñoo foo dina ñam de dina ñam de d'accord léegi ah, léegi dama koy daan yàlla dina sutura ma daan ko nga daan ko ci bëri ci bëri ak Ahmed Lac Rose waaw boo yooyu ñu xeex ñemewuñu booy Ahmed Sëriñ Touba Ahmed Lac Rose ay biir la ok ñun ay la ngay wax laqatu nañ de d'accord PA fi lañ juddoo maa ngi fi yaroo gis nañ ci lu ne dara jaaxalu ñu d'accord kon Ahmed Lac Rose averti Ahmed Lac yaa ngi ci yoonam ah léegi kii nga waxal ñu waxal ñu la rose. fekkee góor yàlla nga wala mbër la. jël avance bi waaw. sa borom góor yàlla mooy wax ak yow. Ah, ah, Abou Thiala Mère mooy wax ak yow man sama yoon nekku ci. Eh. Abou jël avance bi. Eh, par la suite. Mhm. Eh, dama naan ji yaa ngi écrit sax xam-xam. xam kan moo fa ah. na question bi boo de. yow bokkoo ah ok man boo commencé yow yaa ngi loolu. sax xam-xam kan nga saa sa saa xamoon ñëpp mën bëre. xam naa loolu loolu xam naa ko ñëpp mën bëre moom loolu man xam naa mais kan moo fa dàq bëre. c'est que moom tax. Hmm. bëre yi ku ne am nuyu bëre bëre yi ñoo bokk. bi ngay bëre. waaw ah, kii mbotkat la. Hmm. kii riñaankat la. Hmm. kii loxo lay loxo lay bëre kii tàng lay bëre. kii bëre bu gaaw bu yéex lay def kii curax lay def. waaw ah, moo tax mais bëri na sànq yoon nag. mais kan moo fa dàq bëre dafa daa fa bëri. mën nañu avancé dàkk ji. non pièce yow ma la question la comme yeneen question yi. ñëpp a mën bëri ah. loolu nga mën a tontu. waaw ah, ñëpp a mën ah, euh, question bu lay posé waat yow bokkoo ci ah. Mhm. làmb ji wërngal këpp kan moo fi daa fa bëri. làmb ji wërngal këpp ah le roi des arènes. <laughs> en l'occurrence. <laughs> xarañ loo Modou xarañ loo. waaw ah. Modou Lo moo fi daa fa bëri. làmb ji wërngal këpp Modou Lo moo fi daa fa bëri. fi nekk instant yii nii. waaw fuuf moo fi daa fa bëri. maa ngi laaj nga tontu on avance. Euh, par la suite dama naan rakk ji. Mhm. Euh, li mën ma top 5 sa juróomi mbër yi nga jàpp ne ñoo dàq bëri ci làmb ji Modou Lo ak kan. Euh, Modou Lo. Ah. aywa ak li Birame Ndiaye. déedéet waaye ak li Birame Ndiaye fekk ban mbër la. <laughs> mbër laa nga limal ma juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji. juróomi mbër Modou Lo ak booy Modou Lo waaw. Ah. Boy Diop. Boy Diop bu sàq xam-xam. waaw waaw. Anaconda. Anaconda bu sàq xam-xam. Euh, Brise. Brise Brise de bu sàq xam-xam. Mori Cargo. Mori Cargo bu sa xam-xam ñu ñëw daa ko bëri ci làmb ñu ñëw top 5 laa la wax. agogo 5 5 laa la wax. 5 waxuma la 6 eh, ak 2 Ziga waxuma la 6 5 <laughs> laa la wax. yow ñëpp daa ko bëri léegi léegi xam nga la ma wax. Ah. yow dama la laaj juróomi mbër yi daa ko bëri ci làmb ji nga jël lépp delloo ko parce que. dama dama laa wis mais ñooñu baat bi sëy dina am ay mbër kaami lañ. waaw mais juróomi mbër yi daa ko bëri ci làmb ji nga jël lépp classé parcelle pour la. parce que ça veut dire que làmb ji parcelle la. ñu ñoo tëgg nag de. mooy damay laaj rek. Ah. damay laaj rek. laamu instant yii parcelle. ah laamu ji parcelle. parcelle moom moom laamu ji. coow ji bu la neexee euh, mbër mi. Mhm. bëri. Mhm. fit entraînement. gàllaaj man moo ci ëpp solo ci mbër. Euh, lu ci ëpp solo ci mbër. Ah. entraînement surtout. entraînement. Ah, entraînement moo njëkk. waaw ba kon yow boo gisee mbër bi entraîné da nga koy naw. Oh, bu baax léegi yow nga war a bëri ci un jour. Mhm. ñu ne la allo Abou Thiel Mber. dafa am règlement bu bees bu wàcc yow. sa bëre ah. sa fit sa entraînement ah. sa gàllaaj foog nga bàyyi ci benn benn bi du dem làmb ban ngay bàyyi sama bëre sa bëre sa fit ah. sa entraînement sa gàllaaj sama gàllaaj ñeent yi foog nga bàyyi ci benn ñett yi ñooy dem làmb foog nga bàyyi ko gàllaaj juróom day maan kon de mu ci yooyu ah ah mais question bi nag booy foog nga bàyyi ci benn bëree bi fit bi entraînement bi gàllaaj parce que boo boo mënee bëri. booy wax ma ban ngay bàyyi. te amoo fit ñeent yi. ban nga ciy bàyyi nga yóbbu ñett yi bëre bi fit bi entraînement bi gàllaaj bi. bëre fit ñu ne la foog nga bàyyi ci benn ñett yi ñooy dem làmb bi. fit entraînement. gàllaaj ban ngay bàyyi. yooyu moo bàyyi di nga bàyyi de. boo ci bàyyi wooyee loolu lay question bi nag. wala ban ngay bàyyi nga yóbbu ñett yi négocier ko. non négo <laughs> xaw ma mënoo ca bàyyi benn. kon da ngay obligé déclarer forfait nga naan gars ma def la rek ji nga dalee seetaan lamb ba tey ji xam yow ban combat nga seetaan nga dem stade seetaan ko wala nga toog jàkkaarloo keneen di seetaan ko mu marqué la bu mënoo ko fàtte combat bi la gën a marqué ci làmb ban combat combat ba ma gën a marqué ci làmb ah, mënoo ko fàtte ko fàtte mu metti ma neex la wala mu metti la mais bu des ci sa xel rek mënoo koo fàtte combat boo xam ne du ko mës a fàtte combat Yékini la dëgg Yékini la dëgg 2 2016 bi ah. bi la dëgg 2 di daan ah, ak placage bi daan ko ba jéggi ko ak Yékini Yékini nga xam ne yëngal ko sax dafa jafe woon. waaw sëñ nga xam ne champion bu mag a mag. daal déet nga koy waxati ko <laughs> Yékini champion la mu beneen bi. Yékini bu may nekk Yékini loolu moo la gën a marqué. waaw mu métti trop. ok d'accord euh, par la suite on avance mais dama naan euh, yow sa wàllu bopp bi nga dalee bëree ba tey mbapat ba arène ban victoire moo la gën a nekk ci sa carrière. ba arène. amaguma victoire yi la neex. nga bat ba arrêté. amagoo victoire du la neex. ça veut dire que ci nga bëgg a daan daana ko ñi nga war a bëreel bëri ko ak ñoom. ba ci daal victoire bi nga bëgg a am amagoo. d'accord bi nga dalee bëree ba tey mbapat ba arène ban défaite loolu gën a métti ci sa carrière. dafa gën a gën a métti sama carrière. Euh, ak Boy Walo. sa sa dernier combat arène. daf la metti. ma metti ma metti te travail am na ma. travail woon na la. bu baax psychologiquement travail woon dama woon toog sama kaw terrasse. man rek xalaat combat bi rek rek rongoon tuuru. c'est vrai mënu woon sax di génn. mënu woon sax génn xoolanteeg nit ñi. tellement bi nim la choqué. mu metti voyage. Mhm. jël sama xaalis daj ci lu metti. financièrement nga dugal ci lu bari. nga dem bëri ñàkk. avec la manière. laay ma nekk ba tax na pour le retour koo ci dajel. bilaay mu dee. bul non non <laughs> booy. bilaay waaw dóor ba mu kaaw. déedéet déedéet dóor mbër mu daanu d'accord mais dóor mbër ba mu dee mooy la. ak kii yàlla dinaa fa dóor ba mu dee. déedéet dinaa fa def lu kenn demul si laa. déedéet déedéet dóor mbër mu daanu d'accord dóor mbër ba mu dee pour la. waaw waaw waaw parce que alxuraan kare moom mer trop trop trop. moom mer combat bi ma si daj li ma si doon jàppale. Uh-huh. ba nii nii li ma si doon jàppale parce que alxuraan kare ba nii nii nii may wax ak yow nii. rus naa di jàkkaarloo ak ñoom su ma leen séenee sax soit damay kamoo fële sëb affaire yooyu wala su ma leen njëkkee gis tourné. ñu war a may xaalis ba nii nii laay wax ruus naa di leen woo wala ñu may message parfois dañu may message wala ñu woo ma sax mais damay off. parce que ako c'est que man góor laa bëggoo defet bëgguma defet dama bañ uh-huh. uh-huh. ah bu am jom waaw ci domaine booy mënti yëngu da war a bañ defet ba ci daal moo waral instant bi pour le retour mm-hmm. yaa ngi ci à fond kon na ko gars di waxee rek mm-hmm. waaw gars yi damay damay faral dégg ñu naan sàngul leen wante bu nelaw. man sàngu ma nelawu ma. maa ngi ci kawam bu baax a baax a baax. bu baax a baax a baax. bu baax a baax a baax. d' accord ban équipe mooy sa équipe. Manchester United. Manchester United. waaw ah. les Red Devils. les Red Devils. mën nga ma limal 5 jours yoo xam ne mës nañu solo maillot Manchester 5 jours yoo xam ne jaar nañu Manchester. jaar nañu 5 5 euh, euh, Paul Scholes. Paul Scholes. waaw ah. légendaire. Euh, Van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy, le Hollandais. Hargreaves. Owen Agrees, man. Owen Agrees. Owen Agrees. Hargreaves. wala sol numéro 4 bi. ok moo nekkoon Bayern. waaw mu jógee Bayern ni jaar Manchester. waaw d' accord Hargreaves. Oshie. John Oshie. Grealish. booy nag yow Manchester ngay supporté non yow yow United ngay supporté. kan mooy sa joueur préféré. sama joueur préféré. ab na ma dégg ko. instant yii wala bu ñu dëkk ba. instant bii ñu mën a fa yow. instant bii nii saa yi sama joueur préféré Martial la. Martial. Ah, Anthony Martial Martial l'international français. Moi, c'est joueur. d'accord Malade laaj nga tontu. Euh, Rakitic calme kan ça va être Sénégal fii kuy woy nga contact. Sénégal. Mhm. sa chanteur préféré. Sa chanteur préféré. Mhm. Ahmed Ndiaye la Ahmed Ndiaye Zikroullah.